alaykum mbokk xayteeg den internet Dental TV dalal te leen ak jàmm ci seen émission bi ngeen di safoo di seetaan muy seen émission waxtaan ngeen si di ànd seen xarit seen doomu ndey Malcom tey nag maa ngi am mbégte ak bànneex di recevoir sans benn camarade étudiant nekk euh, fële euh, université virtuelle du Sénégal bala la nekk ci Kër Massa ñu koy woowee Mouhamed Bodian tey nag moom mooy sama invité ci biir émission waxtaan maa moom daañu ànd waxtaanee certaines astuces yoo xamante ne ñu ngi koy dund ci biir université en général mais surtout université virtuelle du Sénégal monsieur Bodian maa ngi lay di la dalal ci émission bi ñuy wax euh, waxtaan ci biir Dental TV. maa ngi lay fay euh, Malcolm di le jaajëfal bu baax di remercier ci invitation bi euh, man maa ngi Mohamed Mouhamed Bodian nekk président université virtuelle du Sénégal Kër Massar mooy ENO Kër alors di am contenté ak mbégte di représenter l'Université université virtuelle du Sénégal dans sa globalité mais également aussi

L'importance, am importance moment bi nekk promotion 7 la promotion bu la dañu donc juste pour définir terme Benno bi euh, bureau des espaces numériques ouverts de Kermessa manam euh fi yaa ngi gis dafay am benn benoo bu fa nekk boo xam ni bureau de représentativité des étudiants lay doon moom moo doon bureau boo xam ni mooy mun naa ne mooy yaayu étudiants yi ndax moo leen di fob moom moo leen di plaidel lépp li nga xam ne jafe-jafe la ci biir université bi bureau boobu noonu moo ko yor léegi nag comme ni nga ko waxee bureau boobu lan mooy rôle maanaam ci ci lan lay yëngu mooy li ma la wax ni sànq ci ci maanaam ci activités yi mu nga xam ni moom lay doxal moy tayji bureau bobu bala ñu koy dafa am yoon yu muy jaar ndax euh, université lañ nek ñu ngi université bo xamni université publique la comme euh, toutes les autres universités publiques muy IGB muy ICAT muy muy muy Sine Saloum bi voilà moy c'est Anta Diop bi mala wax muy Sine Saloum bi nek euh, Kaolack donc ce sont tous des universités publiques maintenant université bu comme nous dans tout système il y a une organisation organisation bi am lu koy lu koy ñu koy koy comme amical, parce que amical, amical la étudiants am président secrétaire vice président un trésorier am commission légui nag président bi lañu fal président mais koy fal textes répondre aux normes universitaires comme Amical, yep nu ñu organiser une élections au niveau national donc il faut pas oublier que l'université virtuelle du Sénégal compte pratiquement 13 éno. donc 13 éno, nous ñu ngi ñu prévoir euh, Sénégal du moins mais pour l'instant 13 éno sont disponibles et fonctionnels fonctionnel actuellement donc 13 éno, il faut fu ci élection même l'élection élection yi di di di fa amé té élection yi waaw. ok léegi si kaw loolu tey jii nii xam nga tey jii nii étudiants yi bëri nañ te du étudiant bu nekk aussi tamit bu nekk université virtuelle du Sénégal moo mën a. Euh, moo mën a wax ni dafa bëgg doon président du Bénin tey jii nii critère parce que tey jii nii il dafa am ay dafa am ñu la da nga master wala da nga licence ba pare boo amee licence nga a nekk ni de apte pour demander ñu ñu koy waxatee pour nga jiite bi loolu tamit bëggoon nañ ko xam. waaw parce que njiit tamit kenn du ko choisir ci hasard. Mm-hmm. Euh, li ma la wax sànq rek mooy texte ay test lañ test yi respecté tu es alors tout d'abord il faut que nga doon étudiant étudiants xamni am nga deux inscriptions au niveau de l'université au moins nga nek L2 quoi. nek L2 manam bu ma nee ñaari inscription moy sa première année inscrit nga validé nga ko dem nga sa deuxième année inscrit nga nga am deux inscriptions donc ci dans ce cas yow tu es éligible mom mën nga postuler pour donne président ou école bi maintenant li ci des ay formalité la ak aussi euh, fonctionnement bi nu muy étudiants yi ñoo fal élection lañuy organiser té buñ organiser élection day am ay parti des am ay parti étudiants xam nga politique yi quoi. mais ben la rek parce que gis nga euh, politique yi ñuy def formation la de c'est la base de la formation c'est au niveau des universités. parce que ñi nga gis ni tey ñu nekk ci kaw yëpp ci université lañ nekkoon di piloter ay ay ay amical amical yooyu mo nekk ni beno bi. donc li formation la légui nak parti politique day am ñu may leen temps de campagne ngeen def sen campagne mu am parrainage aussi parce que xam nga candidat dañuy bari bo remplir conditions da ngay bëgg doon président maintenant ci kaw loolu noonu il faut que ñu régulariser ko. maintenant mais on dirait que na parrainage tamit yagul am wala da ngeen confirmer au test politique bu président Macky Sall yéen tamit ngeen ne pourquoi pas le faire parce que loolu yagul am tamit. non xam nga xam nga euh, ni ma la ko waxee sànq rek dafa am. Euh, dans tout système il y a une organisation te organisation bi du li nga xam ne da ngay teg benn affaire loo xam ni euh, day day doon lu pérenne day am ay amélioration day am li nga xamné ay changement dañuy xol teg li ñu né ah lii de gis nañ amna ay manquement ñu améliorer ko amélioration bu motax ñu indi système de parrainage parce que dañuy gis ni ñu bari ñoy bëgg doon président motax système de parrainage bi dañuy né nombre bi parrainage boko amul nombre signature bi boko amul mëno doon président légui nak ci parrainage bi ñaari président ñaari candidat kessé ñoy dess ñom ñoy dem élection légui ci ñaari yoyu noonu noonu lañ def ñu xex xex xex xex ba ñaar ñu ëppalé voix première bi ak deuxième bi ñoy dem élection noonu lañu ñu xeexee xeex xeex xeex ba ñëw ba tollu fii nii ñu dem élection ba ñu demee élection yi ah étudiants yi léegi ñoom ñooy choisir ci ñaari ñooñ kan moo am programme bu gën a dëgër kan nga xam ni moom lañ yaakaar ni mun na porter le flambeau te mun na leen plaidel ci seen i jafe-jafe lépp li nga xam ni moom la ñuy rencontrer ci biir euh, université bi. léegi si kaw loolu bu ñu tey tey ji waxtaan bino bino bureau n'est-ce pas war na mun nañ tamit njort ni yaakaar ni euh, xam nga peut-être du ay wax kessé wala ay idée kessé mokoy dawal quoi xam nga il faut que tam ay fonds ak ay financement parce que tey jii loo mënti def il faut que koppar dugg ci pour nga mën atteindre tes objectifs est-ce que tey jii tey jii nii ñu mën nga ñu leer ndax benn bobu amna ay fonds yo xam te wala benn budget bu ko ministère de l'éducation wala peut-être le code code euh, bureau administratif bi buñ ko jagleel pour muy piloter ses activités. waaw bureau bi euh amna budget mais dama lay fàttali ni rek bureau s'est reconnu au niveau du ministre au ministère de la tutelle moi le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche donc dañ ko reconnaître fouf amical bi ma wax donc ñom dañu am droit am budget budget Le nan lañ koy woyé ci suñu jargon DIP droit des inscriptions pédagogiques donc moom la bolé, boole diviser ko ci ENO yi mooy espace yi nga xam ne mooy surtout UVS beno yi fonds de roulement mooy doon seen budget pour mener di programme yi nga xam ni moom la ñu campagner la bëgg installer pour que étudiants yi améliorer leurs conditions d'études. d'étude donc ci ci l'ol non am nañ budget budget ça saa ñu voter. dañ koy voter day président bi toog mooy bind programme ñu valider ko légui ci kaw programme bobu lay amé budget selon nombre d'étudiants yo mom moom yu mu am ci biir université am budget bobu lay jël pour mëna doxal ay ay activités mais activité yoy noonu tammi bëggon nañu xam ndax activité beno bi kese la parce que tammi ku ne beno xam nga beno ku beno ci biir université amna ay genre mun naa tuddee sax le beno mun nañ ne moo nekk au pouvoir. mais peut-être y a des sous-partis portant ay alliés lañu wala suma ma ma tuddé leen ay opposants lorsque je dis y a des clubs. peut-être am na ay club d'anglais yu nekk à côté am na ay club de communication digitale yu nekk mais tey jii nii est-ce que budget budget boobu ñu leen di jox yéen Beno bi c'est pour an uniquement l'activité du Beno ou bien tey jii nii yeneen club yooyu tamit dañ la war a subventionné si xaalis boobu comme ça ñoom tamit ñu muy def activité parce que y certains clubs yoo xam te ne ñoom tamit dañuy def activité lu mu dee dee trois fois quatre fois si année bi quoi. waaw du ñàkk comme ni ma la ko waxee sa njëlbeen ba nee naa la moom mooy yaayu étudiants yi. donc bu nekkee yaayu étudiant yi club yooyu ngay wax ci biir ci biir ENO bi la nek te ENO bi beno bi moko ouf parce que mom moy légalement euh, structure reconnue au niveau du ministère au niveau de l'administration aussi donc mom moom moo coiffé fofu non. mom mo nek pouvoir bi ci kaw comme président bi ak ay ak ay ministre maintenant club yi ay sa man père président lañ non sax la len di woyé les clubs yi ñom tamit dañuy def ay élections internes ay élection interne mais du du donne comme élection présidentielle mais bi interne lay donne. ñu xol kenn fal ko représenter représenter club bi té club ñun feulé club filière lay représenter filière bi ñoy regrouper wu formulé wu def ben club club bi moy représenter filière bi ci ay activités. am léegi ñoom tamit club nous ñun dañuy liggéey ak ñom en collaboration on travaille avec eux sur le sen budget ci budget beno bi la nek parce que Benoît, bi du question yéen nek bureau bi rek budget bi bu ñëwee yéen rek a koy piloter non non y yéenay piloter activités yi est-ce que comprendre nga la structure mère mais dafay am ñi nga xam ni maanaam club bi dañ seen budget day nekk ci biir budget global bi nga xam ni moom lañ jox eno bi te eno bi beno bi moo ko uuf est que comprendre léegi beno bi ci boppam moom mooy disperse euh, fonds yi. ci destinataires yi destinataires yi mooy ñan mooy club yi nga xam ne ñoom ñoo ku nekk da ngay def sa programme ñu boole ko ci budget bi xaalis bi ñëwee ñu tasaare ko ku ci nekk li nga mën a am nga am ko ci day am nag dangay gis ay pourcentage club bi day am pourcentage benoo bi am pourcentage mu am pourcentage boo xam ne lu am solo day dem ci investissement d'intérêt public mooy xam naa dinañ ci ñëwaat ci ci kanam investissement d'intérêt public boobu fan la jëm ak nan lañ koy utiliser. ok merci monsieur Bodian yaakaar naa loolu jot na leer mais aussi tamit tey jii nii bu ñu fi ñëwee di waxtaanee université virtuelle du Sénégal xam nga ku ne université virtuelle du Sénégal rek le mot virtuel déjà peut-être wala numérique nest pas étudiant bi mënul jàng ginnaaw machine. ginnaaw tablette wala ginnaaw portable wala ginnaaw ordinateur ak ak bu doy te gis nañ nag parfois nag étudiants yi fa ne dañuy jànkonte am na ñoo xam te ne dañuy jànkonte connexion bu doy maanaam ils se disent que connexion bu ñu la ko envoyé n'est-ce pas boo chiffré benn coup wala nga téléchargé benn coup rek déjà off jeex na ça pose problème am na ñoo xam dañuy prêter ça pourquoi pas le ministre xam nga ak partenaire yu muy signé soit Orange wala Tigo ñu mën a yokku mënoo wax université te amu outil de outil outil de travail te loolu tamit état moo ko war a joxe n'est-ce pas te am na étudiants yoo xam te surtout tey jii ñuy wax ni am na suñu bëri si ñoom jotaguñu seen ay euh, nu ñu koy waxee seen outil de travail te loolu mu pénaliser te il te aussi il paraît que seen ay cours démarré na nest pas mais amaguñu fu ñu mën a jàngee parce que tamit nag du étudiants yëpp tamit am ay portable smartphone pour mën a fa suivre seen ay cours yow loolu sax parce que am na ñu bëri tamit boo waxee. peut-être dañuy jàpp ni yéen la c'est vous c'est pas vous peut-être yow di nga si ni carrément wa benn bi la ñom ñoo rënk affaire yi ñoom ñoo té machine yi nangooguñ ko distribuer mais jot na nga leeral étudiant yi nga xam ne ba léegi jusqu'à présent c'est droit la dañ ko wara jot mais jotaguñ ci dara. ok di di di le remercier encore ci question bi bi nga xamni c'est très pertinent d'ailleurs et que mu nek actualité d'abord je vais rebondir ci euh, sa première propos yi moy UVS tey ni mu nek université bu bees manam je sous-entends que da ngay da ngay wax li nga xamni nit ñi d'abord miinuñu ko. Donc, euh, ce c'est pas évident parce que enseignement à distance au Sénégal, on sait nettement que c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, il faut que nous adaptions l'outil système d'enseignement à distance donc forcément il doit avoir des manquements il faut le dire il doit avoir des manquements et c'est naturel pratiquement même dans toutes les autres universités yi nga a ans ou plus c'est des universités qui continuent à avoir des problèmes et que ces étudiants continuent à manifester soit ni logement mo soit voilà c'est ni conditions ñoo soit restauration aussi donc IVS nga xamné mu ngi à sa septième promotion donc si on parle de manquements, forcément ça ça ne devait pas nous surprendre, ça ne devait pas être un problème majeur, puisque c'est une université qui est en gestation. Est-ce qu'il y a comprendre Donc, le problème, c'est de signaler. Mais il faut reconnaître une chose, qu'il y a des avancées. Il y a des avancées remarquables et des avancées positives. Il y a des avancées qui ko tey ci Il machine il y a ko wax machines. bu njëkk ba machine yi dañu première promotion yi ñi ngi ko bàyyi pour am ay machine retard mais au fur et à mesure du temps dem nañ bu outils de travail que la promotion est stable. Promotion 1 bi bokul ak 2 bi 2 bi bokul ak 3 bi 3 bi bokul ak 4 bi ku ci nek da ngay fekke jamono bi nga xamni mom la IVS progression bi mu fi bu fi mettre en place d'ailleurs même mom lañuy wax instant yi ni promotion 7 bi bo xolé 1 2 3 ba 4 5 bi moy promotion bu gëna stable ci ci IVS mo promotion bu gëna stable moy manam 50 de projet donc évaluation fofu la am coordinateur bi mu donne euh, coordinateur bi fi njëkkoon Mohamed Mansour mu am benen coordinateur bi fi ñëw fi actuellement moy le euh, euh, Moussa le coordinateur Moussa vraiment mu défi, fi remarquable mu défi fi positif def fi ay avancées. Euh, euh, def na fi ay avance yoo xam ne ñi fi nekkoon 2013 2014 2015 bu ñu gisee UVS nii nii nii dinañ xam ne am na ay avancé mais avancement yooyu noonu ñu ngi koy def ndànk-ndànk di wut ay système yoo xam ne moom la ñuy mettre en place yi nga xam ne dina répondre aux normes mais également dina mën a satisfaire attente étudiants yi surtout ci promotion set bi nga wax léegi léegi ci nga xam ne waaw. mën nañ jàpp ni xëy na lii yëpp bu jàllee ñoom bu ñu kii quoi bu ñu xaati quoi tôt ou tard moom seen droit moom dañ ko jot muy seen ay machine machine promotion set bi lu am solo parce que promotion set bi dañ doon promotion bo xam ñu ngi doora dugg ci ci université bi nga xam nag déggoon nañ lu bari bala ñu ñew comme comme fépp ah, boy dem ci bërëb bu bees da ngay dégg lu né université baaxul université des vies sacrifiées li ak li lu nekk wax nañ ko mais ba ñu ñëwee ci biir université bi ñu ci bëri gisal nañ seen bop parce que si c'était une université sacrifiée duñ am des promotions yi nga xam ñu ngi am master 2 il faut il faut le dire un master de nekk un master 2 un master 1 un na ñu licence ñi nga xam ne nañ léegi léegi promo 4 bi promo 5 bi mu actuellement en licence donc ce qui veut dire que bu faites une université sacrifiée nous duñ donnons yegg niveau bu donc moi je pense que la qualité de l'université ne dépend pas de de l'institut en tant que tel mais ça dépend de ses étudiants et aujourd'hui les étudiants de l'UVS tay woné nañ ñom sen mën-mën woné nañ sen kattan ci à travers li donc promotion 7 bi li ma di wax tôt ou tard dinañ jot parce que boo xoolee ñàkk jot machine bi du ci administration IVS, système bi état tech en place là. dem nañ ba jox leen ñu ne leen le 16 ngeen di jot sen machine Yalla def. feebar bi dugg ci dëkk bi commencé am doole Macky Sall le 14 bi mu jël décision pour tëj université yi bu kenn la tomber moy samedi té lundi bi lañ leen waron jox sen sen matériel donc yaa ngi gis li indi retard bi donc lool tamit dañ ko war a comprendre du ci du ci administration du ci beno bi du ci état aussi parce que état mënul bëgg jox promotion yi seen machine ba di lor dëkk bi tamit donc loolu dañ ko war a xam intérêt intérêt général bi loolu tax jotuñ seen machine. maanaam en fait daal moom mënul tere rassemblement def rassemblement parce que ku distribution des machines. woote rassemblement parce que ay milliers de personnes wala autant pour moi ay centaines de personnes ñooy ñëw pour récupérer seen ay machines loolu la quoi te yaakaar naa loolu daañu ko bientôt d'ailleurs même euh, le 8 bi la ñuy distribuer seen machine. le 2 mooy réouverture bi pour ñu désinfecter et yi commencer mettre les places et les matériaux en place comme ça nous, bu ñu le 8 nous avons une équipe bo xam équipe de relais la dinañu respecter les mesures barrières respecter la distanciation sociale ñu le nombre étudiants yi nga xam ne ñoo war a ñëw du ñëppay ñëw dañ leen di par mail ñu ñëw ñëwal ñu ñëw nga par convocation Bo nous ñu gérer la normalement nga jël sa machine nga delluwaat naa sa kër nga dem continuer

boo xam te ne àdduna bi yëpp la laal muy euh, le Covid 19 ba tax na saa suñu université yi yëpp muy euh, euh, suñu université yi du virtuel du Sénégal Cheikh Anta Diop yëpp ñu tëj leen n'est-ce pas mais léegi man nag ma question maanaam l'UVS face au Covid 19. parce que tey jii nii boo xoolee le président de la République ba ba ba ba gars yi tëjee université yi lan la ñuy wax na gars yi toog cinq ñu jàng numériquement ñii nekk si nu ñu koy waxtee ñii nekk si télé yi di jàng wala ñi di déglu rajo yi wala ñi di si internet bi l'étudiant l'UVS moom warul un problème sur yooyu kooku moom mis na loolu ba pare kooku avec Covid 19 doon na à la maison. Euh, sans le Covid 19 mon mis na pas léegi ma question est que parce que le sens commun le sens commun dañuy l'UVS ce sont les étudiants sacrifiés et man vu à cette situation man est-ce que tey jii du ma ne UVS nekkul les euh, euh, un université boo là où ce sont des étudiants qui sont plus privilégiés ñoo fa nekk yow lu siy sa xalaat si loolu. parce que ku ñu sacrifié yow la fekk étudiants yëpp tey jii nii kenn jàngatul UVS rek moo nekk di jàng su su ma juumul ñoo nekk di suivre seen ay cours via les plateformes yow loolu loo si xalaat UVS face au Covid 19. Wow, euh, fierté de rek, l'histoire nous a donné raison par rapport à ceux qui disaient que c'est une vie sacrifiée. Donc aujourd'hui, pandémie parfois damay les étudiants c'est c'est un mal nécessaire. Parce que c'est c'est c'est dur dafa metti mais aujourd'hui c'est une nécessité parce que gis nañ ci lu bari aussi le positif. Donc ci bi nga je pense que UVS dafa L'île li à état une vision xam nga dañuy nan état vision la donc euh, vision bobu professeur bi may saluer de passage Mary Teuw Niane ñu koy saluer bu baax diko remercier mom mi am bi am vision bi pour mettre en place une université virtuelle qui s'adapte à l'enseignement à distance li nga xamni c'était pas adapté au Sénégal xamuñ ko c'était quelque chose de nouveau mais aujourd'hui Dieu nous a donné raison l'histoire nous a donné raison le temps nous a donné raison c'est pourquoi la Covid 19 bi gis nañu UVS mu ngi doxal cours. Nous que benn côté bi activités c'est des activités associatives qui yooyu yëpp lañ leen lañ leen dañ comme université mais nous avons nañ benn les activités pédagogiques ñu continuer parce que notre enseignement et s'adapte à la situation actuelle de la de la de la pandémie est-ce que vous comprenez ñun suñu kër la nous yor suñu connexion tek suñu machine di def suñu cours. ataaya bi si côté bi suñu nexé oui bo paré cours bu la nexé def sa ataya mais parce que bo concentré ci cours bi rek machine bi da ngay monter sa écouteur prof bi day wax. prof bi day wax nga jël note bo comprendreul soit da ngay wax nga nga laaj monsieur Ben, affaire mo fa nek ben ki loxo boko ko nga ne ko monsieur dama bëgg wax mu mel nga wax nga poser question wala bok nga saisir sa question mu ne la waaw Malcolm yow yaa ne lii ak qu'est-ce que tu veux comprendre mu expliquer la amul lu gën lu gën positif lu gën a rafet l'ol non. sa kër ngay tok sa salle def sa cours tranquillement et puis en respectant aussi eh, les mesures barrières et aussi les mesures d'hygiène parce qu'on te dit ne sors pas chez toi tu es chez toi tu apprends chez toi ci kaw as lay rebondir programme bu IVS nga sais que moo ko dugal tey état ba élèves yi ñi nga xam ne ñu ngi seen kër élèves yi di jàng mooy euh, apprendre chez toi jàng sa cœur boobu plateforme pour IVS moo ko mettre en place donc ce qui veut dire que UVS participer na lu bëri ci Covid 19 parce que Momo permettait permettre tey état bi mettre en place ce système là bi nga xam élèves yi dinañ toog mais il y a jàng. mais ci parce que tey des capsules de vidéo yi nga xam ne ko mettre euh, euh, aussi auprès du du du du COUTS bi nga xam ne Momo moom moo yor comité buy piloter affaire qui euh, bi Covid 19 bi ci yenn côté de sensibilisation yi ak mettre en place des dispositifs des plateaux techniques donc lolo déjà UVS mu ngi koy def mais yemul ci encore mu ngi def élan de solidarité par le biais de la Fédération nationale des étudiants de l'Université virtuelle Sénégal qui est présidée tay, par Mohamed Ndiaye. Si euh, ENO Dakar la nek, tay moom fédération nationale des étudiants de tous les de toutes de des étudiants de euh, en d'une manière générale tay mon moo koy piloté donc ñun tay UVS am na taxawaay boo yemul ci étudiants parce que maintenant, les leen li nga xam ne dañuy toog seen connectivité bi également ñu ngi koy am fi ñu toog ñu ngi koy am du normal maintenant mun nañ ne connectivité bi mënul yegg ci yenn zones yi dëgg la parce que cartographie Sénégal moo mel noonu daa am ay zone périphériques yoo xam ni du ci IVS mais ci réseau bi Sénégal ci boppam moom moo fa faible donc loolu dinañ ko jànkonte mais li ci ëpp si suñu étudiant ñu ngi def seen cours te d'ailleurs même ñu ngi programme ay examen en ligne donc loolu lu ñuy rafetlu la université virtuelle kese moo am opportunité boobu noonu di jàng ci pandémie bi ñu nekk situation mbas bii nii ñu gis ni université virtuelle kese moo nekk di jàng di remplir ay condition di waajal ay examen am di indi ay promotion di leen jox ay ay ay ay distribution de machine donc lu rafet lu ñuy def université virtuelle Sénégal. ok monsieur Bodian yaakaar naa loolu mbokk internet yi dégg ngeen ko rawat na nag yéen étudiants UVS yu faral déglu te yaakaar naa aussi tamit message bi jàll na c'est à vraiment féliciter te ñu ngi koy jaajëfee ba encore une fois le professeur moom moo moom moo moom mi moom dañ koy waxtee initiative bi mais aussi tamit nag pour lu ñu teeloon si waxtu jeex na mais duñ mënuñu dem tamit te waxtaanewuñu loolu loo xam te ne ce sera la dernière question loo xam te ne ah, ku ne ku ne étudiant citoyenneté xam nga citoyenneté ku ne étudiant citoyenneté xëy na ñu ngi ci Covid 19. mais bu weesoo jàng bu ñuy wax étudiant bi moom il est appelé à être mu nekk quelqu'un qui est serviable ci commune am ci quartier am genre mais ñàkkul tamit ay euh, am na programme bu ñu dégg programme boo xam ne sag la tudd ay étudiant UVS euh, ngang ko di ci def ay acte de citoyenneté loolu tamit bëggoon nañ nga leeral ñu ci brièvement parce que temps bi moo ñu xaw a xoj. waaw ni nga ko waxee rek temps moo ñu xoj mais mënuñ ñëw ba fii te duñ ci wax ndax ci loolu lañ nekkoon sax tey ci suba ci terrain bi donc euh, li ba mu amee ñu gis ni université tëj nañ ko lenn moo ñu dese apprentissage à distance moy manam def cours pédagogique euh, di remercier di saluer bu baax le le professeur Moussa Lo euh, moom mooy recteuru tey coordinateur UVS mom mi nga xamné dafa am idée cette brillante idée bi nga xamné ne dafa né étudiant yi tay yeen ci sen éno yi nga xamné fi ngeen nek ay commune la soit ay département la wala ay région da ngeen war a mun a am impact ci biir commune bi tey exemple Kër ma Massar exemple laa la jox parce que moom laa gën a maîtriser fa laa nekk donc mu ne ñu budget bi ñu leen jox xaalis bi ñu leen jox nga xam ni yéen a ko moom seen eh, activité ngeen ci war a dellu te instant yi dañoo suspendre lépp damaa bëgg ngeen jël xaalis bi def ko ci. Euh, commune bi def ko ci service à sa commune service à sa commune mo xam ngeen dimbalé si ñeen ci wara dimbalé ngeen assister si ñun ci wara assister motax ñun on n'a pas hésité du tout à à à s'adhérer à cette euh, à ce challenge bi nga xam challenge sac la bi nga xam mom moko lancer pour que ñuy def ay activités telles que tay UVS Kër Massar dañoo def ben genre programme bo xam euh dañoo débloquer xaalis jënd ay ay ndundu Dundu lañ jënd ay ay tiep ay sukar eh, comme xam nga ay diwlin comme xam nga ay yenn bool yi nga xam ne daara yi dañ koy soxla. ñu am daara bi nga xamni mom lañ ciblé bi nek unité unité 2 unité 2 fi ni Kër massa côté station ci weti eno bi ñu dem fa dimbale leen ci lool noonu nga xamni moy ay dund moy ay ceeb pour ñu mën leen jappalé comme état dafa retirer xalé yi ci bir euh, ci mbedd bi légui nak il faut ñu mun accompagner xalé yi donc ñun suñu rôle la ñu accompagner xalé yi ci mbedd bi mais yemuñ ci loolu parce que dañoo dem ci inspecteur nga xamni dañoo né état dafa né xalé yi dañuy ubbi suba moy le 2 donc état daf ñu ni ñun ñi ci bopam état dafa ne fay mettre à la place des dispositifs au niveau des écoles primaires mais ñun ñu ne ñun tamit dañuy participer ñu jël suñu xaalis bobu nga xam moy suñu budget ñu am luñ ci jël jënd ay masques jënd ay détergent jënd ay euh, ay yeneen matériels yi nga xam ne dañ koy soxla actuellement matériel phytosanitaire ay gel ay madar yóbbu ko ci inspecteur départemental de de Pikine bañ ko yeggee dañ ko ne ñun étudiant Kër Massari étudiant université virtuelle du Sénégal lii la ñu indi pour accompagner suñu rak yi nga xam ne dañu war a ubbi école bi le 2 pour ñu mun a am ay masque pour ñu mun a am ay ay gel pour ñu mun di raxasu di def li nga xam ne moom la état bi santaane mooy les personnels de la de la santé donc ñun tamit c'est voilà une façon de contribuer au service à sa commune dem nañ organiser nañ fi aussi des débats communautaires yi nga xam lycée lañuy boré pour ñu def débat ñu koy woowe ñu koy woyé encore une fois euh, débat communal c'est une compétition communale donc yooyu yëpp ay aspect la yo xam ne mënuñu lim lepp mais bokku na ci li nga xam actuellement UVS mu ngi koy def particulièrement l'ENO de Cœur Massar mu ngi koy investir ci biir commune Kër Massar nga xamni hôpital ba sax demone nañ fa di fa def ay relais communautaires ak CKM mi nga xam moy coordination des élèves étudiants de Cœur Massar dirigé par Balla gardien boo xam si un jeune dynamique nga xam ne mu ngi ñuy jàppale ci ñu mun di def yenn service à sa commune ci biir commune Kër Massar. waxtaan bi neex na trop trop trop te idée tamit pertinent nañ xëy na loolu olof Ndiaye naan lu def si nabire xayu si bi gërëm nañoo gën a mën a waxtaan lu bëri si UVS tellement que de très très bonnes choses yoo te mu ngi euh, mu ngi xew ci université virtuelle du Sénégal te ma xam si xam xam si lu bëri aussi tamit waroon nañ ko mën a waxtaanee mais lu ñu naan rek xaj euh, temps temps bi moo ñu xoj moo tax dañuy daal di fi xam nga yemale fi émission mais du ñàkk tamit prochaine fois tamit gars 1 la 2 le frère euh, Mohamed Bodian le président du Benoît Kër je ñu gën parce que je sais que université du dañ ko parce que carrément le sens que lu muy pas la réalité c'est une université vraiment ñu fa ay lañu ay xam-xam lañu gens dañu dañu euh, di bay communauté bi ça quoi monsieur Bodian dañuy jaar émission xaar en attendant épisode 2 bi loolu moom may ñu université virtuelle du Sénégal jëlee la foo incha allah avant loolu nag ñu bàyyi la nga tàggatu ak sa mot de la fin ak mbokk internet di safoo di seetaan Dental TV ak seen émission bii di waxtaan. waaw euh, Melcom di la jaajëfal bu baax ci invitation bi choix bi nga def ci université virtuelle du Sénégal particulièrement ENO Kër Massar bi nga xam ne étudiant nga sa yow mii si boppam étudiant nga fa donc déjà exemple la ngi nii ci euh, qualité wu. Euh, expertise ou étudiants yi nga xam ñoo d'ailleurs même dans may ma cité de passage étudiants yi nga xam ne ñoo euh, admis ci concours nationaux comme tey euh, école normale supérieure bi ngay on a eu des étudiants qui sont admis là-bas et que licence rek lañ am donc ce qui veut dire que am une qualité UVS En 2019 on a vu le major de la gendarmerie c'est un étudiant de l'UVS licence rek la il est devenu major au niveau national concours waaye bi gis nañ kiko qui dit le concours au niveau du Sénégal, c'est un étudiant de l'UVS ak yeneen yeneen yeneen même qui yi ngay gis ni ay concours nationaux yi dañuy gis ay étudiants UVS di admire donc ce qui veut dire que enseignement mu ngi biir UVS maintenant qualité wu enseignement bi mu ngi ci biir aussi mais ça dépend de la volonté de l'étudiant est-ce que vraiment il veut réussir ou pas mais UVS ak administration bi de passage je salue monsieur le coordonnateur Moussa qui depuis son arrivée a fait beaucoup de choses pour l'UVS on a vu on l'a on l'a vécu et on sait nettement que DEFNA a ay on remercie tous les personnels de l'administration de l'UVS du CIES, mais également monsieur Nying qui est le chef de la division de la vie estudiantine et de saluer son administrateur M. monsieur Abdoulaye Abdoulaye Diouf mon administrateur ENO Kër de remercier le président fédération nationale ak sama père président yi di de di gërëm sama bureau vraiment li ma war dem leen des gens ils sont dynamiques ils sont toujours sur le terrain démb dañoo wër Kër Massar yëpp di distribuer ay ay di may distribuer ay masque di di sensibiliser sur le terrain ak bi mu di club yëpp ñu fa club yëpp laa lim bàyyiwuma kenn ñi nga xam ne ñoo ci bi di remercier étudiants UVS Kër Massar di confiance am bureau du mais sama bureau di leen remercier di leen ñaan di leen talal loxo ñu gëna japp ci liggéey bi ngir ñu mëna porter le flambeau et montrer à l'opinion qu'il y a bel et bien de la qualité d'enseignement et aussi des des ressources humaines au niveau de l'université virtuelle du Sénégal di remercier président CKM bi Balla Dieng di leen sant di leen gërëm promotion 7 vous aurez vos machines inshallah. n'ayez pas peur. <laughs> ok merci monsieur Bodian promotion 7 de ngeen lo di ngeen jossé machine d'ici le 8 n'est-ce pas inshallah, quand kon daaw on a loolu lañu fi amoon sen émission waxtaan ak sen euh, ak sen xaye sen Ndeye Malcolm ma si doon ànd ak le président du Benno de Kër Massar Mouhamed Bodian ok duñu mës a fàtte aussi tamit di euh, di jaajëfal suñu sponsor comme ni ko sister Eva di ko waxee rek Touba mbir nitul njurul immobilier ñu ngi koy